ahousu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu ala wa sallim wa barakaatu. ñuy tàmbalee sunuy kàddu ci turu jëwriñu Cheikh Rafal ji muy sëriñ Amdi Fall moom sëriñ Modou Mbenda di nuyu mboolem taalibe yi di jiital su nuyoo bi nga xam ne moom lay nuyu sëriñ Muntaxa Mbakke di jëw jëwriñu sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul di ko ñaanal suñu borom mu yàggal ko fi lool te wéral ko mën naa li mu am ngir liggéeyal ko maamam ju baax ja ak waajuram yu baax ya yépp mu mu def ci lu kawe njortam naka noona sëriñ bi di nuyu mboolem njabootuk sëriñ Tuubaa gi di leen ñaanal sama borom yàggal leen fi te wéral leen ci ginnaaw seen jëwriñ ju baax ji di sëriñ moom du Mamadou Mountakha kenn ku ne li sa yéene ci liggéey sëñ tubaab yi nga def ci lu kawe sa njort di ñaanal ak di nuyu mbooleem njabootug maam Cheikh Ibrahima Fall gi ñi nga xam ne ñëpp moom ñoom la bokkal maam Cheikh Ibrahima Fall te tey muy seen jëwriñ mu leen di nuyu te di leen siyaare bu baax a baax te di leen ñaanal ñoomit kenn ku ci ne sa yéene. si liggéey bi nga xam ne mooy liggéeyu Cheikh Fall bi jëm kër sañ Bamba kenn ku ne yàlla na ci def lu kawe njortam ah, di nuyu nag bokki taalibe yëpp nag fu ñu mën a nekk ci réew mi ak ci bitim réew di leen nuyu bu baax te di leen ñaanal sama boroom defal leen tawféex ba li nga xam ne mooy seenu bëgg muy waxtu wu ne ñuy jekk ndigalu sëriñ bi sunu borom jàppandalal leen ko ba ni nu ko bëggee nu di ko ni amee waxtu wu ne. li waral nag sunu jataay bii tey day ndigal lu bàyyikoo ko ci Serigne Amdi Fall moom Serigne Modou Mbenda jëm si mbooleem koo xamante ni kii rek Sëñ tubaa ak Cheikh Ibra ñor nañ la rawatina ñi nga xam ne danoo jaayante ak maam Cheikh Ibra Fall nga xam ne seen yaakaar dara génnu ci Cheikh Ibra xam ne seenug yëngutu ak seenug dal lépp dañ koo jox maam Cheikh Ibrahima Fall kon kàddu yi ci ñoom ñoo ñi la jëm. mu bàyyi jaar na jaarale ko nag ci liggéey bi nga xam ne ñi ngi koy liggéey fii ci kër maam Cheikh Ibrahima Fall gii ci Jannatu Mahwa nga xam ni kër gi mën nañ ne daara la ndax këru ndigal moom daara rekk lañ ko mën a tudde ndax bërëb la boo xamante ni ba ko sëriñ Touba Serigne Abdou Lahad yàlla na suñu borom doole ay leeram di saytu di ko teg ci loxol jëwriñu Cheikh Ibra Fall ja di Serigne du Falilou Fall la mu si bëggoon mooy sakkal kër Cheikh Ibrahima bërëb boo xam ne wala daara joo xam ne danañ fa mën a nekk di fa liggéeyal sëriñ Touba ndax Cheikh Ibrahima moom fépp fu mu mës a am bërëb bërëb boobee daara la boo gisee dëkk yi mu sos fu Serigne Touba mës a nekk rek bi ko fa Cheikh Ibrahima fekkee li muy njëkk a def mooy dem dànd sëriñ bi samp ay daara yoo xam ne. fa la ñuy liggéeyee lu lew loo xam ne dañ koy yót sëñ tubaa ci liggéey bi nga xam ne doon na ko liggéey rasulullahi sallallahu alayhi wasallam naka noonu bërëb bii nga xam ne fi lañ toog tey muy kër maam Cheikh Ibra Fall gi ci waa si lool yi rekk la dugg ndax Cheikh Ibra Fall moom akuk njabootam danoo tànnoon nekk liggéey yaakonu sëriñ Touba lépp luy bëgguk sëriñ bi rek Cheikh Ibra jàppoon na ni moom rekk la war ba tax na fépp fu mu masane rek ndigalu sëriñ bi rek la fay xaar sëriñ bi joxoon ko bërëb bii nag yàlla dogal sëriñ Modou Falilou Fall liggéey ko ànd koog njabootu Cheikh Fall gépp ba mu mel nii mu mel bi yàlla dogalee ñëwee akub dogalam ci sëriñ Modou falilu sëriñ Cheikh Fall jëmb moom it yàlla suñ borom dolli ay leeram moom it daal di mottali liggéey boobu yi nga xam ne moom la sëriñ Modou Falilou Fall tàmbali woon si bërëb bii. di wéyal liggéey boobu yi ba yàlla ñëw ko dogalam tey jii nag sëriñ am di Fall moom sëriñ Modou Mbenda jilif njabootuk Cheikh Rafal gi bërëb bii tege ci loxoom mu daldi wax ci njalbeen gi nag ne bërëb bii de yéene ji ci magam yu baax yi amoon ak jëwriñu sëriñ tubaab ji nga xam ne ñoo leen ko joxoon loole nga xam ne moom la amoon la bëgg daal di mottali nag mottali leen ko seen yéene daal ñëw sa njalbeen ga rek ab jataayam daal di ñëw féete si bërëb bii ba yàlla dogal gàmm gi jege si mu bàyyi ko fi dem njaareem jóge fa dem gàmm ju Cees ne ko magam ñu baax yi daa defe ba gàmm gi jàllee rek nag mu daal di dajale njaboot gépp xamal leen ni leen li ma fas yéene de mooy bërëb bee di kër maam Cheikh Rafal geesa jandu max waa falaa fas yéene togga ji ndogu yi ren jii incha allah bu ko suñ borom dogalee ba ndigal loolu it la lawee si nopp taalibe yi euh, ja jàmbaram yi nga xam ne naka jëkk seenu liggéey ci kër Cheikh Rafal tàmbaliwu tey naka jëkk danoo saxoon sasoo woon lépp luy bëggug sëriñ bi rek loolee ñu nekk sa muy sasoo di liggéeyal maam Cheikh Rafal lépp luy jàppandal li nga xam ne moom lay liggéeyal Sëriñ Tuubaa rek nu nu nu jiitu sa loolee taxaw sa ba liggéey ba ni ko sëriñ bi bëggee mu amee ko ni muy ñoo xam ne seen pas-pas ak seen bëgg ak seen yéene du gan ci sëriñ bi ndax jëf nañ sëriñ bi gis won nañ sëriñ bi te sëriñ bi mooy Cheikh Ibrahima Fall kon képp ku topp ci gannaawam la ngay jëf dara ump ko si ñoo ñi nga xam ne ñoom lañuy ñuy tuddee alali maam Cheikh Ibrahima Fall kenn ku ne xamoon leen ci liggéeyal maam Cheikh Ibra Fall bi fi sëriñ Cheikh jëmm nee taxawaay bi nu amoon ci kër maam Cheikh Ibrahima Fall ñu àndandoo ak seen jëwriñ muy Serigne Omar Seck mii nekk sama wet di jëwriñu alali Cheikh Ibra lu jàppandal liggéey boobu yi nga xam ne Serigne baa ngi koy waaj muy koor gi nga xam ne ndog yi nga xam ne bëgg na ko fee indi ñu doore ko fii di ko fi liggéeyee defar fi ñaari mbaar yu mag yoo xam ne menn mbaar mi day mbaar moo xam ne fa la ñuy toggee ndogu yi bu nu ko toggee ba noppi yanu ko nag indi ko si mbaar mii nga xam ne moo nekk si kanam si ëtt bi nga xam ne kees gi jëkk mu doon mbaar moo xamante ni mii dañu fay teg ndab yi kilifa yëpp daje fa sëriñ bi génn toog xool ndab yi ñaanal mbooloo mi ñu yëkkati ko ak turu yàlla yóbbu ko kër sëñ Touba ji ko. sëriñ bi jox leen digal ci kanamu jëwriñam yëpp ba noppi nag ñaanal leen nag xamal leen nit ne bu ngeen geesoo da ngeen ma gis maa ngi seen kanam maa ngi seen ginnaaw ba mu leen ko waxee rek sëriñ Omar sekk mii di jëwriñ ànd ak ñi mu daal ñi mu bokkal liggéey bi. ba nu bàyyi ko fi sëriñ bi rek lañu ñu daal di teg def seen itte muy daal di tàmbali liggéey bii fa saa si lanu lanu lanu laaj ndigal sëriñ bi bis bu nu koy tàmbali sëriñ bi jox leen bis bis boobee ñu ñëw fii tàmbali liggéey bi sëriñ bi yabal si fii ay ndawam muy sëriñ Fallou Fall moom sëriñ Modou Aminta ak sëriñ Moussa Fall moom sëriñ Modou Aminta ndigal loo xam ne dafa jaar si jëwriñam ja sëriñ Cheikh Ndiaye Mbeng nga xam ne mooy jëwriñam sëriñ Cheikh Ndiaye jotti leen ndigal loolee ñu ñëw fii daal di natt mbaar ñaari mbaar yëpp mbaar mu ne ñu natt ko muy ñaar fukki meetar ak juróom-ñett si kaw fukki meetar ak juróom-ñett nga xam ne noonu la mbaar mi yaatoo ñaar fukk ak juróom-ñett lay gudde yaatoo fukki meetar ak juróom-ñett kero bañ leen ko nattalee ba sa ëllëg sa rek lañ daal di tàmbali liggéey bi dal si kaw liggéey bi nekk si nag ak seeni pexe nekk si ak seenu ñaq ak seen doole duggee si biir danga gis ni liggéey bi lu si ëppoon solo tey jii loole daanaka féete na boor ndax li jëm si suuf li nuy war a suul nga xam ne day féete suuf te mooy li tax mbaar mi mën a dëgër mel na mu war a mel lépp ñu ngi ci di ko saytu ci na anam ya nga xam ne anam yooyu la gën a rafete liggéey boobu nag la sëriñ bi wax ne la mu leen waxoon ni maa ngi seen kanam maa ngi ci seen ginnaaw te xam ni sëriñ bi dëxëñ na si mbooleem njariñ lu ab taalibe di yittewoo si diggante àddina ak àllaaxira la sëriñ bi waxoon ni tey jii nanu daje fii nag daal di defaat nag ab soññee aku fàttali si mbooleem njabootug sëñ Tuubaa ak Cheikh Rafal gi ñi nga xam ne liggéeyal sëriñ bi ñor na leen ñi nga xam ne am nañ pas-pasub jëfal maam Cheikh Ibrahima Fall am ni Fall moom sëriñ Modou Mbenn di jëwriñi maam Cheikh Ibrahima dafa wax ni liggéey bii nuy liggéey fii si kër maam Cheikh Ibra Fall te alali jii di ko liggéey si njiitu sëriñ Omar Seck moo joxe ndigal li te mi ngi sàkku ci bépp taalibe ñu ñëw ànd ak sëriñ Omar liggéey bi ba ni nu ko bëggee mu am ndax liggéey bi du lenn lu may luy tax ba nu mën a jekku ndigal Serigne Touba jii nga xam ne moom la nu dëgmal di ndogu yi nga xam ne moom la sëriñ bi fas yéenee togg te togg ko fii yóbbu ko kër Seex Mamadu Muntaxa Xaadimu Rasuul kon sëriñ bi mi ngi wax ni fa fépp fu ab taalibe nekk képp koo xamante ni kii mbégum sëriñ bi sa mbég la. képp koo xamante ni kii da ngaa am itte si liggéeyal sëñ Tuubaa ak Cheikh Ibra am sëriñ Amdi Fall Modou Mbenn nee na mi ngi lay woo ci liggéey bii nga xam ne ñu ngi koy liggéey fii si Jannatul Mahwa muy ñaari mbaar yu mag yii nga xam ne sant na ko alali maam Cheikh njiitu sëriñ Omar sekk mii mu ànd ak mboolem jëwriñ yi mu àndal ñu di ko liggéey di ko taxawu tàmbali nañ ko ba mu egsi fii fas yéene ko wéyal balaa yàgg dara mu àgg nu jébbal sëriñ bi caabi yi. toog di xaar leneen ndigal loolu la sëriñ bi waxoon ni képp koo xam ne danga see amoon am lënt wala képp koo xam ne kii ndigal li dafa egseegul woon si yow wala képp koo xamante ni kii rek yaa ngi doon taataan ndigalul maam Cheikh Ibra Fall bunt boo jëfale Cheikh Ibra sëriñ bi nee na bunt ngi nii boo xamante ni bii mën nañ fee liggéeyal Cheikh Ibra liggéey bi nag sëriñ bi dafa yéene ñëpp jàmm moo tax mu yebal nu ñu toog ak jëwriñam yi ngir soññee si liggéey bii ndax moom de ñun ñëpp xam nañ ni liggéey bi bu nu si jàppee dana àgg bu nu si jàpp dana àgg ndax liggéey bi maam Cheikh Ibrahima la dañuy door rek waaye sëriñ bi mooy àggale lépp pas-pas bi nag ak yéene ji ak jëf ji moom la sëriñ bi di fay ndax yoon wi kat li muy yaatu yaatu bëgg ak jàq dong la bëgg sëriñ bi ak liggéeyal ko te yàlla rek tax kon nag képp ku la woo ci liggéeyal Sëriñ Tuubaa ak Cheikh yéene na la jàmm. bëggal na la tawféex àddina ak alaxira kon sëriñ bi mi ngi wax ne képp koo xamante ni kii bëgg ngaa tàbbi si liggéey bi nga jog jokkook sëriñ Omar Seck mii toog wala jëwriñ yi nga xam ne tànn na leen ànd ak ñoom liggéey bi nga xam ne ñoom la teg liggéey bi si seen loxo nga jog koo seek ñoom ndax tawféex ji nga xam ne moom la ñu si yaakaar lépp sunu borom mën nu koo jotalee mi ngi sant ñëpp nag si li jiitu di sant ñëpp si fii nu toll. di ñaanal ñëppit nag si lii nu jëm yàlla sunu borom defal ñu tawféex ak jàppandal ba ni ko sëriñ bi bëggee nu amee ko ni ndax loolu rek mooy sunu ndam tey ak ëllëg loolu rek moo nuy jariñ tey ak ëllëg bërëb bi nag boo fi ñëwee dinga gis ni am na beneen liggéey bu fi ne ndax daayira Lamp Fall boo xamante ne bii daayira Zikrullah Lamp Fall nga xam ne sëriñ Mër Njaay ngee Ngéejaan moo ko jiite ñoom it ñi ngi fii si kër maam Cheikh Rafal gi am liggéey bu nu fi amal liggéey boobu nag mooy ab magasin la boo xamante ni bii ñoom it gannaaw ba nu xamee ni ñoom it liggéeyal sëriñ bi rek mooy seen itte te waxtu wu ne sëriñ bi day soxla ay jumtuwaay yoo xam ne ñoom ñooy dem di ko saytu ji di ko wuti di ko indi jumtuwaay yooyee bëggug jàppandal ñoom it taxoon ñu ñëw si sëriñ bi laajoon ko ndigal ngir defar fi magasin bu mag boo xamante ni bii dana mën a denc mbooleem jumtuwaay yi nga xam ne moom la ñu yittewoo muy jëm si ay baas ay cin ak ay ndabak ak mboolem loo xam ne jumtuwaay la boo xam ne bii dinañ ko yittewoo si fii kër si maam Cheikh Raye nga xam ne waxtu ko sëriñ bi soxlaa dañuy daal di ubbi magasin bi rek jël ko def li sëriñ bi soxla bu noppee ñu delloo si biir ñoomit it yitte jooju ñu am ak pas-pas boobu taxoon ñu ñëwoon si sëriñ bi ñoomit it laaj ci laaj ci ndigal ba ñu laajee ndigal it sëriñ bi jox leen ndigal loolee ndigal la nag dafa maase ak ndigal lii nga xam ne jox nañ ko sëriñ Omar Seck si liggéey bii ñoomit boo ñëwee fii si kër maam Cheikh Ibra Fall sa wetu Saalum ga si kër maam Cheikh Ibra ga ñoomit it ña nga fa defar magasin boo xamante ni bii bu mag la liggéey ba sori na ba fii mu ne yaakaar naa lee ñu war a kuule ah ñoomit it ña ngi sa liggéey ba am yéene nag mu àgg ak jàmm ñu leen koy ñaanal barkeb Cheikh Ibra ba ñu mën a jébbal sëriñ bi caabi yi di xaaral leneen ndigal ndax murit loolu rek mooy ngànnaayam mooy jot ndigalu sëriñ bi jëfe ko na ko sëriñ bi bëggee moom it ndigal loolee nag ñoom ña nga waaye fii si biir kër gi nag muy ëtt bu mag bii ngay njëkk a jot ak ëtt bee nga xam ne fala la ma waañ wa nekk muy fa fa lañ war a def mbaar mi nga xam ne fa la ñuy togg ci euh, ndogu yi ñaari mbaar yooyu sëriñ Omar Seck mii ak dayra alali maam Cheikh Ray ñoom la ko sëriñ bi jox ndigal nu taxawal ko ñoom nag tàmbali nañ mbaar mii si ëtt bu mag bi yaakaar naa bu soree rek tuuti danañ song mbaar mee nga xam ne fa la ñuy war a def togge ñam ya su ko defee ñëpp xamee ko noonu nga xam ne nag ku si jàpp mu dem ko si jàppul mu dem kon nag euh, sëriñ bi yéene ñëpp tawféex tax muy sàkku si taalibe yëpp nag ñu ñëw ànd ak ñoom liggéey bi ba ni ko sëriñ bi bëggee mu amee ko ni kon loolu la sëriñ bi waxoon nu jottali ko di sant nag mbooleem njabootug maam Cheikh Fall gi di sant mboolem. ñoom waa alali maam Cheikh Fall gii nga xam ne ñoom la ko sëriñ bi sant di leen ñaanal yàlla suñu borom jàppandal leen lépp ba ni ko sëriñ bi bëggeen mu amee ko ni di sant mboolem taalib yi nga xam ne waxtu wu ne ñu ngi fiy ñëw di ànd ak ñoom liggéey bi ah di ñaan yàlla nu sama borom yóbbu si ñu àggale ko jàmm ba tàmbali yeneen àggale ko ak yeneen ak yeneen ànd ko sëriñam di Fall yàlla suñu borom yàggal ko fi loolu te wéral ko kon loolu ndigal loolu la sëriñ bi joxoon ñu di ko jottali di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu